baabul li ab bunt la fii bayaani tasrifi sulaasi yi ci leeral soppi sulaasi yi waxee yi am dul sulaasi yi min abriyatil afxaali ci tëgg fi xale ya nee na bunt yi bunt bi muy bëgg a dugg da ci leeral fiil maadin bu nekk sulaasi yu moo ciy tëggee mu daarixu ak sax bu jàllee dana wax lu ëpp sulaasi yu ba tey moo ciy tëggee mu daarixu te nee na sax day far waxaale fu ci fu mu toll ismu faahil moom mu war a mel ak ismu mafhum mu war a mel ak mastar mu war a mel li nga xam ne du yem rek ci mudaarif ma waaye day waxaale ismu faahil ma ak ismu mafhum ma ak mastar ma faslu faala lii mooy faslu faala maanaam bunt si nga toll daal maanaam dog bi nga toll daal faxalaa ko moom waxtax na nga fataa mudaarixan mudaarixum saxiixan bu di saxiix min faxala tukkee ci faala in kaana ndoom nekk na al xayrul faa'il dul faaga xalqiyan di arafu xalq soxla woo soxlaal na nee na faxala boo ci bëggee tëgg mudaarixu na nga fataa xëyin ba bu ne na nga fataa xëyin ba tax mu wax xëyin ba muy arafu ci digg ba bu fekkee nag lu bokkut ak faaga lu bokkut ak faaga muy xëyin nga mbaalaam nga faaga nga xam ne muy arafu ci njëkk moom am ñu soxla ci lu mu doon rek baax na waaye arafu ci topp muy xëyin nga mbaawu ci toppaat muy laam nga su doonee xarafu xalq xalq baat lay firi daa ma raf yoo xam ne boo ko dee tudd day bàyyeekoo ci sa bëli ñu leen tuddee xoroful xalq ñoom ne yomb nañoo takk ndax juróom-benn lañ da nga wax xaalonk ak boo ko tombee muy xaalonk muy alxaaw ak alxaaw su ko defee xayin tam ci la te boo ko tombee ci lay doon muy alxayinu ak alxawnu muy yent su ko defee nga boole ci xamsa xamsa ci la wokk nga boole ci alkubeer ñu wax alxaa alxaa alkubeer yooyu juróom-benn yooyu ma xam mooy arafi xalq mooy xoroful xalq su fekkee arafu ñaar yooyu ñu ko wax xëyinu baat wala arafu ci mujj ñu ko wax laamu baat kenn doon na kenn doon na ci kenn ci araf yi xanaa bu ca kenn doonee kenn ci araf yi ndax muy faala boo xam ne saxiix la saxiix ne kon bu dee fii ma mën nga ne faala bu nekk saxiix ak bu nekk mahmuus ci xëyin nga mbaa ci laam nga waaw dañ koy dañuy fataa xëynam kon ci gàttal nga wax ne faala boo xam ne saxiix la bu amee araf alax ci xiin nga mbaa ci laam nga dañ koy fataakoon te am sama bokk na ci arafi alax yi nee na soxla soxlaal na benn seen ci ñoom la ndax xam nga ne faxala la te saxi la te am na araf alax ci xiin gi mooy ci digg bi kon wesh xalu ngay wax lu mel ne raxala laxas na raxala ba tey kooku xaaloon ko moo nekk ci digg bi te araf alax la kon war xalu ngay wax lu mel ne fataxa ubbi na xam nga mujj xaaloon ko la te kooku mooy laamu baat bi danga koy fataa yaf taxu ngay wax mel ne saraa normal na moom itam xam nga ne arafu ci mujj xayin la te mooy laamu baat bi arafa wax la kon yaf saraawo dana normal ngay wax kon faxala bu nekk sax yi te am arafa wax ci xayin mbaa ci laam wala mu am ci am sa ndax am sa ci arafi alxi la wokk su boobaa dangay fataa xayin na mooy gàttal bi waxay ci wax loolu fu mu fi wéete min xurufil xalq ci arafi alq fa damm kon damm nga wala kasra ak kasra ga loxoo ñal na ko bil xaq ci dëgg nee na bu fekkee faxala la boo xam ne sax yi la waaye amul araf alax ci xëyin amu ko ci laam ah kon nee na moom bu la neexee kasara xëyin ba bu la neexee dàmm ko des na ko misaale atala bi firi di wax na atala ayin lay doon tàggi taatam bi lay doon kooku faxala la boo xam ne sax yi la te amul araf alax ci xëyin amu ko ci laam te fekkul tam mu siwee kasara fekkul mu siwee dàmm kon mën nga ne yaa atu lu dana ba max mën nga ne yaa ati lu kasara ko ba tey satama ngàññ na mën nga ne wash tu mu ak yos ci mu siif tooy lay doon ak taatoom bi moom chatama waaye nag bu fekkee amul araf alax ci fiin amu ko ci laam waaye daa xas siiwee kasara danga ko ci bàyyi ne daraba dóor na amul araf alax ci fiin amu ko ci laam waaye daa xas siiwee kasara yabri bu lañ ci wax kon danga koy bàyyi noonu rek ku mel ne addala mandu na wala jeng na ba tey naa la mel yaa addi lu rek ngay wax su siiwee daam ni tamit ne xatala rey na ngay bàyyi rek yàq tuulu wala talaba sàkku na dafa siiwee daam bari da ngay bàyyi yàtt lu ubbu faxala bu nekk sax yi rek nga waagun mu ne wal kasru kasara ga xat mun aji war la fil misaali ci misaal in xalaante wéet na min hu ci arafu alax misaal moo loo xam dafa ràgg ci njëlbeen gi maanaam faag baat ba rek moo ràgg ne ne wasala jokk na wala mooy misaal kooku ne nee na bu fekkee amul arafu alax ci xëyin amu ko ci laam kon dañuy kasara xëyin ba ne ne wasala jokk na da nga koy njëkk a def yow si ilu waaye kenn du jàng nag yow si ilu ndax foo ko fekk dañuy dagg waaw gi rek bàyyi fa la fa des ma des yas yi lu dana jokk lu ne waqa ba tàbbi na mel ne isa waqa ba yow xi bu lay njëkk doon waaye da nga dagg waaw gi rek bàyyi fa la fa des muy yaqi bu dana tàbbi lu mel ne waxee na doye dina ngay wax yéexinu dana doye di rek lu mel ne wataba tëb na wataba tëb na am noonu la yafi bu dana tëb rek lay doon wataba boobu tombal la wa in xawaaxu ndeem làq na arafu alax fal fataxu kon fataaga injalaa feeñ na su amee arafu alax alax nag moom moom misaal boobu danga koy fataa mel ne waqaxa tàbbi na xam nga waqaxa tàbbi na xëyam gi ci mujj mooy arafu alax kon waqaxu dana tàbbi lañu wax yow xaamu la njëkkoon a nekk waaye waaw boobu moom faaw day dëgg rek mëttalimaale bu ko defee mu des yàqaamu dana tàbbi waxee ba maye na itam gis nga daa mara faalax yow xëbu lay njëkk a nekk waaye da nga dëgg waaw gi rek mu des yow xëbu dana maye wa in yekku ndeem dana nekk al ajoof ajoof min hu ci faxala waaw wi yan di ko jóg waaw yu dam na ko ndeef na ko dàmm day topp rek anam fexal bu ne wax na sax yi wax na misaal mu ñëw ci ajoof neena bu fekkee ne faxala ba dafa nekk ajoo fi waaw kon su boobaa da ngay dàmm xayin ba kooku mooy lu ne xaala wax na bàyyi ko ci xawala ak saama war na bàyyi ko ci sawama ak lu mel ne jaara jéng na bàyyi ko ci jawara xam nga lu mel noonu digg bi ak waaw la soo ci dee tëgg mu daarifu da ngay dàmm xayin bi da ngay delloo si xawala def ko yàq wu lu sawama nga def ko yas wu mu jawara nga def ko yejji wóoru waaye loolu nag kenn ko jàng moo kaanu nekk na kawana ci la bàyyi ko yekk wu nu mooy njëkk doon cosaan waaye kenn du jàng loolu danga wax ne araf rag bu maas xam nga bi nga ne yekk wu nu ba yekk wu nu waaw waaw googu araf rag law maas aji wér ci njëkkam sukkoon mooy da ko jiitu wérte sukkoon mooy gis nga bu dee yekk wu nu xaaf gi ko jiitu dafa wérte sukkoon nangu maas gi jox ko te soppi ko bi jikaanam war na mooy war ngaa toxal maas ak araf rag bi jox ko la ko jiitu woon te wérte sukkoon ba noppi soppi ko bi jikaanam loolu nag boo ko defee moo koy dellu ci yàqoonu dana wax saama woor na yesoonu dana woor kaana nekk na yàqoonu dana nekk jaara jeng na yejooru dana jeng noonu lay mel loolu na ajoo fi waaw wala yaa u yaa xak suma mooy safaanuk la nga xam ne li raaw yi ñeel na aji nekk li ja su dee ajoo fi yaa nag moom dañ koy kasara ajoo fi yaa mooy lu mu ne baaxa jaay na bàyyi ko ci bayaxa wala kaala natt na bàyyi ko ci kayala wala saara dox na bàyyi ko ci sayara bu dee kaala dañ ko jëkk def yàq yi lu saara dox na nga jëkkoo def yes yi lu baaxa jaay na nga jëkkoo def yàbb yi lu su boobaa nga ne rafraag yi maas mu yaay jooju maas aju yoo ci njëkkam sukkoon bu dee ci bayaxa yàbb yi lu mooy baa boobu bu dee ci kawe la yàq yi lu kaaf googu ak ji moo ko jiitu te wérte sukkoon da ngay nangu maas ki jox ko sotti ko mu jikaanam ko defee boo toxalee maas ki yaay yi jox ko la ko jiitu yàbb yi lu day dellu ci yàbb yi lu dana jaay yëkk yilu day dellu ci yëkk yilu dana nat yasiiru day dellu ci yasiiru dana dox loolu mooy ajoo fi yaa wala ko soro def na kasar al lafiifu lafiif min hu ci faala mutlaqan nu man di doon lafiif bu man doon moo xam lafiif maqroon la moo xam lafiif mafroq la dañuy kasara yi nam bu dee maqroon mooy lu mel ne shawa wàjj na wala tawaa taxañ na shawa shawa ya la doon nga ne yasiw yi dana wàjj tawa ya nga ne yàq yi dana taxañ kooku mooy maqaroon bu dee mafruq mel ne wafaa matal na walure day njëkk a nekk yow fii waaye da ngay dëgg waaw gi mu des yow fii dana watal walure lu mel ne waa wattu na day njëkk a nekk yow xii waaye da ngay dëgg waaw gi mu des yaa yi dana wattu lu mel ne waqaa fegal na day njëkk a nekk yow xii su ko defee nga dëgg waaw gi mu des yàq yi dana fegal rek jàppal ne kon lafiif moom dañuy kasar xaynam rek waxee ko saa ni ki nii man xoosuhu man xoosuhu faala laa mutlaqan waaye nag du mutlaqan faxala bu nekk man xoos man xoos mooy ku ràggee laam arafa ci mujj rek moo ràgg kooku moom nee na des na ko kasara waaye des na ko dàmm des na ko fataay itam yépp lay boole jàppal ne man xoos bu dee man xoosum yaa teemul arafu alax foofu rek lañ koy kasara mel na rama sànni na man xoosum yaa la teemul arafu alax ngay wax kon yaram yi dana sànni ba tey jaraa daw na ngay wax yëjjir yi dana daw lu mel ne saraa rañaan ngay wax yësr yi dana rañaan yooyu moom dañoo doon man xoosum yaa teemuñu arafu alax waaye suñ doonee man xoosu waaw mooy mujj ak waaw la kon da ngay dàmm xëyin nga mel ne daxaa woote na nga wax yeddu xon dana woote sama yëkkatiku na nga wax yes moo dana yëkkatiku nama dolliku na mbaa yëkkatiku na mbaa màgg na nga wax yen moo yu mel noonu lañ mel doon rek ngay fataa mais bu fekkee day man xoosum yaa ba noppi am arafu alax mel ne raxaa sàmm na xam nga raxaa sàmm na man xoosum yaa la waaye daa am arafu alax dañ wax kon yar xaa dana sàmm wala saxaa dox na it moom la nga wax yes xaa dana dox kon manqoos yëpp la am manqoos am na fata xaynam am na damm xaynam am na kasra xaynam amal mudaaf daal mudaaf sawu damm def na ko damm fi taxaddi ci jàggate ga mudaaf moom nga waxoon ne arafu ñaari loo bu xëyin ba awa ci mujj muy laam nga ñooy amoo dong mu ne bu dee radda delloo na mu bàyyi ko ci ra da da wala madda tàllal na mu bàyyi ko ci ma da da kooku moom nee bu dee kuy jàggati jàggati mooy xew-xew ba day génn ko ko def jàll ci keneen su boobaa da nga koy daam madda delloo na day jàggati radda delloo na noonu kon da ngay def radada madada bu ñu nee dàmmal xëy bi nga ne yar du du ak yam du du waaye loolu xam nga kenn ko jàng da ngaa war a jël daal bu njëkk gi sàdd ko ci bu ñaareel gi bala nga koo def nag maas gam maasal moom daal googu da nga koy jox la ko jiitu woon ci sukkoon li ko bëree ci yam du du nga doxal maas ko lonk gi ci daal bu njëkk gi yóbbu ko ci miim gi ba mu doon yemu nga sàdd daal gee ci daal gee mu daal doon yemu du dana tàllal bu dee yar du du itam. daal bi nga njëkk a da ngay doxal maskaam yóbbu ko ci rajo fu jiitu sukkoon mu yëru nga door a sàdd daal gee ci daal gee mu yarut du dana delloo bu doon ci damm ji nga séentu yi damama ci la bàyyi ko day njëkk a nekk yàbb mu mu yàbb moom war ngaa doxal génn mi ngi sàdd ko ci mu ñaareel gi bala nga koy def da ngay doxal maskaam yóbbu ko ci la ko jiitu sukkoon ndax yàbb mu mu la doon soo ko defee mu dellu ci yàbb mu jàppal ne ko mu daaf moom. boo bëggee xam ba xam xëyinam dafa dàmmanam de da ngay xool lu njëkk sàdd ga rek lu njëkk sàdd ga bu fekkee dafa dàmm rek kon xëyin nga woon te dafa dàmm wala xaq su safaan ba intama askanu na li dit di jëm ci safaan ba loolu mooy bu dee mu daaf muy laasim mu daaf muy laasim mooy xew-xew ba du génn ka ko def ci maxnaa ma ne farra daw na allisu sàcc bi daw gi ci moom la yem wala xarra sedd na almaamu ndox mi da ngay kasar xëyin ba njëkk a wax yaf ri ru wala yàq ri ru su boobaa boobu itam da ngaa war a sàdd raage ci raage bala nga ko def da ngay toxal maska gi nekk ci raage yóbbu ko ci af ji ko jiitu bu dee yaf riiru wala ak ji ko jiitu bu dee yàq riiru soo ko toxalee yóbbu ci nag daal di sàdd yaari raay muy yafirru dana daw wala yaqirru dana sedd yafirru al lissu ak yaqirru al maaw ki nga toll nga xam ne mooy faxala moom anam boo wax rek am na àtte boppam sax yi am na àtte boppam misaal noonu ajwaf noonu lafiif noonu manqoos noonu mu daaf noonu mahmuus nag moom daa duggaale ci ko am arafa alax boo am arafa alax mel ne xara a jàng na dañ koy fataa yaqra u xasa a yëjju na retaan na yahza u sa ala laaj na ki nga daa am sa moo tax ci digg bi te arafa alax la ñu ne yas alu kon loolu mooy àtteeb mu daarixum faxala day def nag comme tollu ci buntam day waxaale boo ci tëgg masdar nu masdar may mel ak boo ciy tëgg ismul faaxil nu muy mel ak boo ciy tëgg ismul mafool nu muy mel nag lay bu wax waa tubira xalameef na al masdaru masdar ma bi taxaddi ci jàggate ga wa bi lusoomi ak ci laasim ga xinda ahli raddi fa ñun delloo ga neenam faxala nag moom boo bëggee xam masdaram nu muy tëggoo dangay njëkk a seet ba xam faxala bu jàggate la wala bu laasim la am déet ndax bu dee jàggati day am masarum boppam bu dee loosim ba tey noonu te mooy nii wal faaxlu faaxlu aaxla bu moo gën a natt maanaam moo gën a bari fil faaxli ci faaxlu ba al muhadda ba dee buñ jàggati loo maanaam bu dee faaxla boo xam ne day jàggati nga xam ne xew-xew bu dana génn da ko def jàll ci keneen kon nee na faaxlan moo ci gën a bari léegi daraba dóor na day jàggati nga ne darban xasada jublu na day jàggati nga ne xasdan lu mel ne itam jaraxa jam na nga ne ci jarxan ak jam loolu lu bari bari la muy faax la bu dee jàggate moom faax la ni ki radda delloo na nga ne raddan madda tàllal na nga ne maddan wala laasimu aji laasim al fuxuulu fuxuulu yaxlibu dana mat fii ci moom bu fekkee faax la bu dee laasim na nga xam ne xew-xew bu du génn ko ko def fuxuulan moo cee bari ki jàll sa jekki na day laasim nga ne ci juloosan xaxada itam noonu jekki na nga ne ci xoxoo dan xaraja génn na ba tey day laasim nga ne ci xoroojan yooyu noonu lay mel ka xaraja wa saaxilun faaxilun man xoolun lu ñu toxal la isma faaxilun mbir mu isma faaxilun faxala su mas mafxoolun topp isma mafxool loxoo ñeel faxala mafxoolun moo di mafxoolun waaw nee na faxala boo ci bëggee tëgg isma faaxil maanaam boo ci bëggee wax aju nangam kon na nga ciy tëgg rek faaxilun di ki bëggee jàll sa toog na nga ne jaalisun aju toog bu dee daraba dóor na nga ne daaribun aju dóor bu dee xaa la wax la nga ne xaa ilun aji wax xaa wi lun da njëkk a nekk waaye daañu waral wax ñu ne daañu waral tax ñu wax xaa ilun bu dee jaraxa jam na nga ne jaarixun aji jam bu dee xasaru jublu na nga ne xaasidun gis bu baax noonu lay mel boo ci bëggee ku ñu nangam baal lu ñu nangam nag da nga ciy tëgg mafulun léegi boo bëggee wax lu ñu way ngay wax manzoomun bàyyi ko ci nazama way na boo bëggee wax lu ñu jublu mbal mbaa ku ñu jublu nga ne maqsoodun boo boo jubloo wax ku ñu dóor mbaalu ñu dóor nga ne madroobun boo jubloo wax ku ñu jam mbaalu ñu jam nga ne majroobun xam ne isma fam moom lu ñu nangam moom mbaa ku ñu nangam mafulun lay doon waza te lii saxiixun aji wér la fii jamii imaa ci mboolem li nga xam ne mabaawoy na min aw juhil fexni ci ay anami fexal bu wasfin ci aw wasaf yurtadaawu def na ko gërëm te yore li mu la wax moom ci ismu faahil mi faahilun ismu xool mafoolun moom nee na ba mu teqale faxala ba nekk saxi ak ba nekk misaal ak ba nekk ajoof ak ba nekk lofif mbaa ba nekk man xoos amu ci solo moom yépp rek noonu moo ci wéy bokkute na nga waxoon ci tëgg fexal mudaarif ma nga xam ne moom day teqale ko ci bu dee saxi bu dee misaal bu dee ajoof di wéy déedéet yi moom yépp ci yemoon laakin namal mafxoolu waaye nag mafxoolu yëf yi dana dikk bi naqsi ci manqué in siixa dem tëggeef na was nu was fi yi màndaxem wasafam wa min ajoofi ci ajoof mu ne waaye nag mafxoolu jéem wax ne mooy is mafxool boo ko tëggee te fekk kooku doon ajoof ajoof mooy kuraag gi ci digg bi xëy garaag ga nee na faaw mu amul manqué mooy faaw des na ko wàññi waaw ndax lu mel ne tey ku mel ne xaala wax na xam nga daa bàyyi ko ci xa wa la boo jubloo lu ñu wax kon daa war a nekk maq wóolun maq wóolun ngay wax ne arafraag bi maas mooy wu aji wér ci jëkkam sukkoon muy aq nangu maas bi jox ko te sopp ko mu jugaan war na kon boo toxalee maas ka waaw gi jox yóbbu ko ci xaaf ga def ko maqoo kon yaari waaw dana fi dese ndax bi nga nee maq wóolun rek yaari waaw nekkoon na fi am na genn waaw gu bijji woon naka jekk moom léegi nag boo soppee gi bijji ko mooy itam kon ñaar waaw dafi tase kon nag ko defee nga dagg waaw googu nag bàyyi fi gi rek mu des maqulun lu ñu wax moo tax mu naa day manqué maqulun moo ci des lu mel ne saa ma war na it boo ko defee sa wa ma mooy ci sànni boo defee mas woo mun jublu ci lu ñu woor des ku bàyyi noonu dañuy wax ne arafaraag gi mas muy wu ci nga wax aji wér ci jëkkam sukkoon muy as muy saar boo ko jiite sukkoon nangu maas gi jox ko te sopp ko bu jugaan war na kon boo taxalee maas ko waaw gi jox ko saat gi ba mu doon masoo fekk na fi doon waaw nekkoon na fi bi jiwoon na ndax mas woo mun nga waxoon su boobaa kon dangay dagg waaw googee bàyyi fi giréen moom mu des masoo mun lu ñu woor lu ñu woor noonu lay des mu des nag bu dee aj ba fiyaa aj ba fiyaa xam nga moom lu ne bayax na jaay na wala kayee la natt na xam nga boo ko defee mag yoolul lu ñu natt wala mab yooxu lu ñu jaay loolu kenn du ko jàng dangay waxaat la nga waxoon arafraag bu maas bu dee mab yoowoon gis nga yaay ji arafraag la maas ak wér ci njëkkam sukkoon gis nga ab ci ko jiit daa wér te sukkoon kon nangu maas ka nga jox ko te sotti ko bu jëkkaana war na waaye nag foofu dañuy bañ a toxal maas ko lonk ndax xam nga boo toxalee maas ko lonk yaa ngi fi nekkoon day soppiku waaw ndax boo jëlee maas ko lonk yooyu bu ci baa bi yaa ngi fi nekkoon day soppiku waaw te dañuy bañ dem ajoo fi yàlla woon ñu koy jaawale ajoo fi waaw kon dañuy jël kasara rek dañuy jël masque kasara yóbbu ko ca la jiitu woon yaay ji bu ko defee nag yaay ji bi jikko bu ko defee mu soppi ko ma bii xun lu ñu jaay ma bii xun lu ñu jaay ak mag yi xun lu ñu natt a noonu lay soppi ko loolu nag du rek da nga koy jàng wetti ko maanaam moom mooy am ci téere yooyu moom foo ko fekk rek nga war a def àtte boobu moo tax lu ñuy daam loo xam ne nga koy jàng rek moom mel ne ko ca noppi nga xam ne lu léegi nga koy gis waaye lii moom lu yooyu lay doon àtte la boo xam ne dafa sax wa shaaxa siiw na mab yooxun mab yooxun bii firi lu ñu jaay wa max yooxun ak max yooxun bii firi lu ñu niisal kamaa na dara naka mu néewe masoonun lu ñu ñoŋal daa bàyyi ko ci saana ñoŋal na wa maqoodun ak lu ñu wamat bàyyi ko ci xaada wamat na samaaroon yëkkatiku na dara woon ne la bu fekkee day ajoo fiyaa mu ne mab yooxun ak max yooxun ñoom ajoo fiyaa lañu moom nee na ñu bañ koo soppi bàyyi ko noonu rek wax mab yooxun ak max yooxun moom bari na des na ko def ci téere yi taxul nag mu gën du yoon wa itam waaye moom bari nañu def ko su doonee ajoo fi waaw nag mel ne mas woonun bàyyi ko ci saana ñëwal na wala maq woonun bàyyi ko ci xaada wamat na wala sax nga waxan maq woonun jublu ci lu ñu wax wala nga ne woon mas woonun jublu ci lu ñu woor bañ koo sopp bàyyi ko rek noonu loolu ne moom néew na loolu moom bariwut kon jàppal ne bu dee amoo fi waaw soppi ga moo gën a bari wàññi ko ba mu des genn waaw ga bu dee amoo fi yaa nag moom lu bari des na ko bàyyi noonu waaye moom it li ci gën rek mooy soppi ko wàññi ko li ñu waxoon léegi. wa jaa dikk na moom faxala bil musoo bi ci laasim nga wat taxaddi ak jàggati ga waxal la maa yës la mu waaye néewaa na mu wëcc min taxaddin ci jàggati laa bëgg woon ne la faxala yi jàggati mel ne dara ba dóor na mbaa xasada jublu na ñu mel noonu ñoo gën a bari yi nga xam ne ñu laasim mel ne jàll sa toog na mbaa farra daw na faslun li ab dog la yi fay la ci fay la bir kasra ci kasra xayin gi